yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina bu ñu jóg di way sang asalaamaaleykum mbokku internet à Dakar midi ak wasaare ñu amati bëgg ak kontante naa leen demee toujours dañuy topp li nga xamante ne mooy seen actualité màggal gi ah, yàlla def na tey ñu toog ki nga xamante ne mooy ah, Serif Serif. Serif Cheybani ah, Serif Cheybani Aydara ñu tootee Serif Cheybani Aydara tey ñu fas yéene waxtaan ak moom tuuti li nga xamante ne jëm ci li xamante ne mooy màggal gi mooy li nga xamante ne tamit mooy jëm ci mbindum Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul Serif ñu ngi lay nuyu di la siyaare maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di leen zi di leen ziyaar bu baax kii wax ak yéen nag mooy Chérif Adrami doomi Cheikh Sadibou doomi Cheikh Daay ca Daara Jolof Daaru Salaam ki ngeen jàkkaarloo kii nag mooy Chérif Cheybani Aydara ca Daara Jolof Daaru Salaam Ndogondo moom ngeen jàkkaarloo nii bëgg waxtaan ak yeen ci yàlla nee na ak yonent bi nee na ak lépp li nga xam ne ni laaj ngeen ko ko incha allah dina leen ci tontu moom mooy Chérif Cheybani Aidara borom jàmm ak jamono jërë ngeen jëf. jërëjëf ñu ngi leen nuyu di leen ziyaare jiiteel ci nuyoo bi ki nga xam ne ki moom la fi yàlla def tey ji xalif général de Mouride ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadul Muntaka ñu ko ñaar yàlla yàlla na fi yàgg te wér yàlla may ko ak gudd fan lool yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot bi waaw ku baax li ko ñaar yàlla rek mooy wér ak gudd fan waaye lu ci def yëpp yàlla def na ci moom bu dee barke yàlla defal na ko bu dee doomi wàllu yàlla defal na ko ko bu dee moom mu nekk wallu yàlla defal na ko ko bu dee moom boroom xam-xam la yàlla defal na ko ko moo tax ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare bu ñu ko nuyoo nuyoo nañu waa Touba yëpp waaw ñi ci teg nag ñi nga xam ne waa kër Seydina Mohamed ñi toog kii suma jar la suma rakk la Chérif Cheikh Adrami mi moo ko tuddee rek tudd naa ñeneen ñi Cheikh Adrami doomu Cheikh Saad Bou di ci teg nag suma xarit bi nga xam ne ne mooy borom kër gi di sëñ baaraloo ki nga xam ne kii moo waral suñu tànk yi fii waaw ak suma xarit bii nga xam ne man Abdou Diouf laa koy wax waaw maa ngi koy ñaanal yàlla moom it Abdou Diouf mu yàgg fii lool te wér moo tax nag ñu ngi leen nu ñu ngi leen di nuyu bu baax ñuy ñuy ñaari chaînes yi it ñu ngi leen di nuyu Dakar Midi ak Wassare ñu ngi leen nuyu di leen ziyaare di ñaan yàlla yàlla na nekk ay télé bi cheikh rasulillahi sallallahu alayhi waaw li nga wax nag ci xabaar euh, Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba mbiram mooy mbiru yàlla ak yonent bi rek Serigne Touba mbiram mooy mbiru yàlla mbiru Seydina Muhammad woote Serigne tuuba mooy woote yàlla woote Seydina Muhammad Euh, lii moo li mu def lii tey dafa dafa dafa ne nañ ko ko santalee yàlla xam nga ne boo gisee nit mu ne maa ngi dem bés bi ngay dem xam nga moo na bàyyi ba mu ñibbisi mu doog a wax santal leen ma yàlla mais mu bu muy départ di dem la wax bés bii dama bëgg ngeen koy di ma ko santalee yàlla kooku xam na ne dina ñibbisi ci jàmm te xamul ne doon ñibbi si si jàmm loolu doo ko wax léegi nag yàlla indi na ko ci jàmm dem na ànd ak tubaab yi dox na mission bi nga xam ne ne yàlla moo ko ko yónnee moom Cheikh Ahmadou Bamba ak Seydina Mohamed keroog bu mu jógee fii ba nu mu ñibbisee Sénégal musul taqali ko ak yonent bi moom ak yonent bi ñoo nekk fu nekk tubaab yi jaar nañ ko Cheikh Ahmadou Bamba mu ne luñ ko dara ba yàlla def mu ñëwaat fii mu ñaan nag bés bii màggal bii nag. damay xa dama leen di xamal ne jullit bi nga xam ne ne jullit nga laa wax bi nga xam ne ne yàlla moo wax ci alquran innamal muminuuna ixwa bés bii sa bés la képp kuy jullit rek waxuñu burit waxuñu tiijaan waxuñu cadre waxuñu laayeen képp kuy jullit rek kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa bés bii sa bés la war na la jaral nga bàyyi sa yitte nga ñëw war na la jaral nga ñëw nga bokk ci teraanga yi amee tamit loo ci def doo ko rëccu ba Serigne Touba bi ku ci def ren bu déwénee da nga ci def ñaari bés dama fu ma toog ma wax ma ne la jullit man li ma gën a fonk ci suma dund mooy ñaari bés yi bés yonent bi sallallahu alayhi mooy gàmmu ak màggal Serigne fu ma toog ma wax ko mais ñaari bés yi laa gën a fonk ci suma dund ñoo ma jaral miiraas suma bopp waaw moo tax nag ñu ñëw ñu déplacé wu Daaru Salaam Ndogondu ñu ñëw xalifa bi ñu ñëw àndoon suñu xalifa bi foofu ñu ñoo bokk benn presque ñoo bokk benn dalukaay moom sëñ Maam Moor mu Cheikh Mouhamadou Mourtada moom moo koy dalal man Cheikh Abdoul Ahad mu Cheikh Mouhamadou Mourtada moom mooy dalal te Cheikh Abdoul Ahad doomu Cheikh Mouhamadou Mourtada day ñëw ci man tamit gàmmu waaw sëñ bi xam na ne chaque année ñu ngi tase foofu ci man fii ci Daaru Salaam waaw moo tax nag bés bi dinaa leen wax lenn nag yàlla mbiram dafa doy waar yàlla mbiram képp ku mu ci boolewul doo ci bokk ñëw màggal walla màggal yonent bi wala dem màkk wala dem fu baax fu nit ñu baax nekk nga ziyaare leen yombul yàlla rek moo la ci boole nga dem waaye ku ci yàlla boolewul ren tamit ñu ngi ñaan yàlla déwél yal na ci yàlla boole ndax xéewal la ñëw màggal xéewal la ñëw màggal teraanga la ñëw màggal fonk waliyu yàlla bi nga xam ne ne yàlla moo wax ci alquran inna awliya allahi la xawfun alayhim wala am yaxzanun yàlla nag bu aaree waliyu ah, kenn mënulu ko dara bu ñu tiit bu ñu ragal bu ñu jaaxle waliyu rek yàlla wax moo tax nag bés bii nga xam ne ne mooy bésu Cheikh Ahmadou Bamba bi man de sama bopp daa xamal man Chérif Cheibani ku ko fonk fonk naa ko ku ko fonkul man fonk naa ko fu ma toog tamit ma wax ko mm-hmm. waaw jaral na ma ànd ak mbooloo ànd ak waa kër yonent bi ànd ak taalibe yi ma ñëw ni ko sëñ bi buggee ñu defee ko noonu ñaal ko yàlla wàccal ko ay kaamil def suñuy ñaan ñu ñibbi ci jàmm te ñu ngi ñaan yàlla nag bépp jullit bu fi ñëw tamit ci ci Touba fii nga ñëw ci bés Cheikh Amadou Bamba bi yal na yàlla faj sa soxla ñëpp ñi dëkk ci dëkk bi de ñi ngi def ay teraanga ñi ngi def ay bernde yal na yàlla gën a kattanal bu nekk ñu mun lu ëpp lu ñu munoon lool ñu ngi koy ñaan yàlla ngir Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teg nañu lépp ci sëñ Tuuba loxo sëñ Tuuba sëñ Tuuba na ko toog ci loxo Seydina Muhammad Seydina Muhammad doxal na ko suñu borom te fu mu fu jaaree fii rek mu egg ci yàlla moo tax nag ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen xamal ne màggal moom ah bés bu jara fonk la waaw waaw waaw waaw jërëjëf jërëjëf safar terootina ay sunu deret sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang be safar terooti na sunu derot yëngooti na sunu sidit yëngooti na bu ñu jóg di way sang be